ñëw na ba ci jumaa ji ànd ak rakam di sëriñ bu Mbàkke mi nga xam ne moo jiite kuréel gii di Touba ca kanam ak taalibe yi ñu àndaloon ñu visité jumaa ji nga xam ne moom la fi sëriñ Muntaxa Mbàkke Basiiru taxawal moom sëriñ Abo Baraka nag bi agsee kilifa yi nga xam ne ñoo doon saytu liggéey bi te yoroon ko leeral nañ ko lépp loo xam ne moo jëm ci jumaa ji rawatina intérieur bi Cheikh Abo Baraka ak sëriñ Abibu Mbàkke yéemu lool ci liggéey bu am solo bi nga xam ne sëriñ bi def na ko fii ci Poroxaan mu nekk lool santaat nañ ko ci bu baax a baax ñaanalaat ko mu yàgg fi lool te ànd ak wér sëriñ Abo Baraka bi mu agsee ànd naag sëriñ Mot Sahin ak yeneen kilifa yi nga xam ne ñoo yoroon liggéey bi ñu leeral ko li nga xam ne moom lañ def ci biir jumaa ji ànd ak moom mu visité ko lépp loo xam ne rek moo jëm ci liggéey bu am solo bi nga xam ne Cheikh Mahamadul Muntaxa Mbàkke Bachir moom la fi def ñu leeral ko sëriñ abu Baraka ak sëriñ Abibu Mbàkke ñoom nag yéemu nañ lool ci liggéey bu am solo bi nga xam ne sëriñ Muntaxa Mbàkke siiru moom la def fii ci diwaanu Poroxaan mu nekk lool ñaanalaat nañ ko bu baax a baax mu yàgg fi lool te ànd ak wér bismillaahi fii niin ak daara yàllaaw sawi baqaa abi bi fii ka yàllaaw yaa man lawoo amru yaa man laa sharika lahu wasi wa ma lil waad lidika ya allah wajatuka al yawma ya rahman muntadiyan fawzi bima situfi dunyaka ya allah أزاري مراسي أجو برامتي ألا ألاقي درا منك يا الله أزاري ملاسي أجو برامتي ألا ألاقي درا منك يا الله مليك يميني وقل بزال يا مليك بلا إسان بن بيجو دل منك يا الله خدست سري يا قدوس متليا عني وعن كرادي تدار يا الله